بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين sunu borom day subhanahu wa taala mi ngi wax ci téeréem bu tedd bi innama kaana qawla almuminina ida ducuu ila allahi wa rasulihi liyaxkuma baynahum an yaqulu samicna wa ataana sunu borom mu ni bokk na ci màndarga mi wan kenn ku ne ci ñun ndax moom gëm na yàlla wala déet te defe naa loolu ñun ñëpp yitte woonoon ko kenn ku ci sikk sàkka ci ñun ndax man gëm naa yàlla wala déet mooy da ngaa amul nattukaay boo nattee ndaxam la chaque nit ki mën naa bëgg lu baax waaye est ce que moom fi mu teg tànkam foofu la wala déet mën na cee sikk sàkk ñaareel mooy est ce que ngëm yàllaam gi valable na fa sun borom wala déet loolu mën na caa am ak sikk sàkk ñetteel bi mooy est ce que yàlla nangul na ko ngëmam wala déet loolu mën na caa sikk sàkk waaye su dee sunu borom amal nañu ab nattukaay boo xam ne ñun mën nañ caa nattee sunu ngëm su boobaa kenn ku ci nekk ci ñun day jéem a jël nattukaay boobee mu natt ngëmam. comme ni ñu mën a nattee di xam tension nit ki fu mu toll xoolal tey ni nga xam ne doomu aadama noonu lay def di natt tension xam fu mu toll dem xooli deretam ndax am na sibiru xool ndax am na jabet maanaam coono boobu ñuy daj ci fajum yaram est-ce que ñun ñu ngi koy daj ci fajum xol te loolu duma dañ di ko fàttali ba keroog ñuy faatu ndax mbokk yi dañuy masala mu am solo kenn ku ne ci ñun bu yegee ni feebar da dem hôpital bopp buy metti lépp lu la gaar ci yaram. balaa sa xel daal dafa mel ni sax dem ci ab médecin mu xool la moo lay gënal dem ci jàkka ja sax julli ñaar rakk ñaan yàlla subhanahu wa taala est-ce que lu toll nii li ngay jug di sàkk lu faj sa yaram est-ce que lu toll noonu yaa ngi koy jug di sàkk lu faj sa xol comme ni ko salafu saalih doon defee di wut lu defar seeni xol gis nga ñi doon baax mbokk yi ñi ngi baax ba léegi ba tey ila yawmina hada benn waxkatu arab nee na fi zawaaya xafaaya wa fi naasi baqaaya gis nga ruq yi ruq yi ba léegi ku làmb am loo fa daj waaye nit ñi ba léegi nag am na ñuy desit am na ñuy baax ba léegi de gis nga lii ngeen doon déglu ba tey am na ñu koy jëfi ba tey fi nu toll am na ñu koy jëfi misaal mi ma mujjee joxe ñaar ñi ko def ku nekk yaa ngi dund ba tey ma xam la comme ni ma leen xamee yéen ñi am na ñuy góorgóorlu de gis nga bu dee da ngaa tardé ci yoon wi mbaa nga yokkat mbaa nga yëg ni mënoo dem mbaa nga déglu lii nga rus lool li tax nga rus mooy sa ñàkk jom lay feeñal kenn ci magi salaf nee na xaddis naa ani salafi li kay naftadih soo bëggee suñu gàcce feeñ rek da nga ñuy nettali nan la salafu saalih doon dundee góor yu ragal yàlla ya yu bëgg yàlla ya di jooyal yàlla subhanahu wa taala saa bu ñu déggee alquran dañuy jam seen bopp baaraamu tuuma diw yitteelu ma ndax yàlla duma laaj kook sama bopp moo ma yitteel ndax yàlla sama bopp la may laaj sunu boroom ni bokk na ci nattukaayu ngëm yi innama kaana qawla almuminin ku gëm yàlla li nga war a wax ida duu ila allahi wa rasulih buñ ko wooyee ci yàlla akub yonenteem an yaqulu samicna ñu wax ni dégg nañ wa ataana te dañuy topp est-ce que loolu ñun ci njàngale yi ñu dégg tey ak yéen daan dégg ak yéen fas yéenee dégg est-ce que dañuy ko ci jëfe est-ce que ni yàlla bëgg jullit bu jigéen mel ni ñun mel nan noonu wala déet mbokk yi maa ngi leen di seedal ci yàlla subhanahu wa taala ni yàlla bëgg nu mel ni fii melul ni nan yëg ni suñuy jëf yeggul fenn loolu bu yow nan ko xam nag suñuy def demul fenn fenn la say jaamu yàlla demul yàlla dafa am aw yoon wu mu tracé rëdd ko ni nii la bëgg nga mel ni melokaan wu mu melal ni nii la bëgg nga mel ni yoon wu mu tracé ni fii la bëgg nga jaar kenn ku ci yëg ci ñun ni melokaan wi suñu borom bëgg nga mel ni yaa ngi koy mel yëgal ni yaa ngi am yaakaar yoon wi suñu borom tër su dee yaa ngi ci jaar xamal ni tege nga ci yoon te di nga yegg fa nga jëm sunu borom day dafa fiir ci ku jigéen jullit bu jigéen est-ce que l'islam ni mu fiiree jigéen jigéen sax fiiree na noonu boppam mbokk yi islam dafa fiire jigéen fiire ko fiire ba jigéen ji bu faatoo dugg biir bàmmeel ñun góor ñi dem ci armeel yi xam nañu jigéen buñ koy suul sax dañuy wut morso nëbb ko muur ko kenn du ko gis mbokkum deretam nga nga ni déer puusal jugal fi ñu woo ko bokk ak moom deret pour mu laal ko laal rek laal allahu akbar laal ku dee luñ koy doye ku dee góoru jàmbur lu góoru jàmbur feebar feebar feebar lu muy doyee jigéen ju dee waaye déedéet laal loo bokk ak moom nga ni bokkuñu dara ñun la puusal ana ndijaayam ndijaayam ñëw ana magam magam ñëw ana baayam ñi bokk ak moom deret ñoom ñoo sañ dugg ci biir pax bi téye ko allahu akbar Fatima benn bis dafa gis ñu jël jigéen daal di koy muur teg ko ci kaw bant bi affaire bi ni jugg juggaaral mu mer mu ni man di nii ma gis ñuy suulee jigéen nii sib naa ko neexuma mu ni moom bu faatoo nan ko defaral genre forme benn ni kees dugal ko ci pour góor ñi bu ko kenn gis borom xam-xam ñoo xam foofu la nëbb gi ñuy nëbb jigéen tàmbalee nga xam ni jigéen bu faatatee ñu koy nëbb ak di ko wutal kees ak di ko muur ak ila axiri salafu saaleh mbokk yi ñoom dañoo fiiroon ci seeni soxna jigéenu jàmbur góoru jàmbur ay waxi caaxaan la ñu sequt am na benn saxaaba bu mës a génn dem xare bàyyi soxnaam ci bunt biir kër gi mu dem ba ca yoonu mu fàtte ni am na lu mu fàtte mu dellu siwaat ci kër gi moytu li day daan bi mu dellu see fekk soxnaam mu taxaw ci buntu kër gi fett gi la xàcc rek nar ko koo jam allahu akbar mbokk yi xoolal góor yu ragalee yàlla noonu mu nar a fet soxnaam fet lu tax nga bàyyi la ci kër gi fekk la ci buntu kër gi ndaw si ni ko damaa jékki-jékki ba mu yàgg benn jaan ni ba xërjët génnee ci biir néeg bi moo tax ma ragal ma daw ma génn jaan joojo moom la waa ji ñëw di ko rey daal di xàcc rek jam jaas ji rek daanu dee moom ci la yent bi waxoon ni Madina daa am ay jinne yoo xam ni jinne yi jullit lañ te dañuy soppeeku jaan bala ngaa rayati lenn na nga def ndànk kon ñoom da dañ doon fiir ak seeni soxna mbokk yi saxaaba bu ci masaana gis soxnaam di wax ak di góoru jàmbur ay caaxaan yow moom keroog sa bis yàqu na yow sa bis yàqu na ay góor yu ragal yàlla te fiir waaye ay jigéen yu ragal yàlla tamit te fiir ci seen bopp benn góor du la ñemee wax ay waxi caaxaan góor gi lu mu am ci yow daa fekk yaa ko ko may ndax kanam du kaso waaye ko ko tëjal mu xam comme ni ko la fi di léebee est-ce que ni l'islam bëgg ma soloo noonu maa ngi soloo noonu est-ce que caractère bi fulla ji ci su may jëflante góoru jàmbur waxuñu bul wax ak góoru jàmbur waxuñu bul bul kaf yooyu yëpp am na waaye bu nekk dafa am ay tënk-tënk yu ko sharia tënk mbokk yi bu ñu fàtte ne lii yàlla daf ñu koy laaj de ñun fi ne ñoo nar a gën a métti li gis nga ku bon ko ca mbedd ma yëgul lu géej gii riir manees na koo jàppal ngant moom daa xamagut waaye yow mi nga xam ne jot ngaa dégg coow topp na la ndax ëllëg doo am lay maa jaa ana bashir wala nazir man lii xaw ma koon suñu borom mu ni déedéet faqad jaakum bashirun wa nadir bar leeroon na kay yow yaa toppoon sa bànneex ki xamul de am na problème waaye ki xama ko problème parce que ko amatul lay qul fa lillahi alxujjatu albaaliga suñu borom mu ni wax leen ban dégg ne yàlla layam yi am na lay ci kaw nit ñi de lay wi mooy lépp leer na doomu aadama yi dégg nañ subhanallah am na jigéeni jàmbur yoo xam ni ñun góor ñi sax dañ leen a ragal loolu maa ngi leen koy wax ngeen yëg ko nag bis ni ki tey am na jigéeni jàmbur yoo xam ni ñun góor ñi sax dañ leen a ragal lu waral loolu fulla ji faayda ji caractère gi ñàkk caaxaan dama ne la yow ko góor ki sa fit ñemewul sax ngay wax ak kooku waxi caaxaan wala ay kaf yu ëpp fala taxdaana bil qawl kenn ku ci nekk booy wax borom bi subhaanahu wa taala jàngal na la nooy wax nooy doxee wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yuxfina min zinatihinna jigéen buy dox sunu borom mu ne jigéen jaaduwut muy dox ñuy dégg cappar cappari tànkam bay mën a xam ni di way ñëw ëppal gu mel noonu am na ci sunu biir am na jigéen ñoo xam boo déggee ñuy karas karas fii ci pare bi da nga xam ne kii diw loolu ci lislaam tere la bokk parce que la muy wane mooy doxin wu ëpp woo xam ne ma ngay tëllëx tëllëxi ba boo déggee xam ne ñuy doxinu diw la déedéet islam da koy tere jigéen buy dox day ànd ak dal teey gis nga booy wax mu ni fala taxdaana bil qawl jigéen buy wax dafa war a dëgëral kàddu wax ful la jóge fam benn góor bu mu am lu muy bànneexoo ci say wax wala ay waxi mboosoor waxi caaxaan yoo xamante ni doo ci am ay tiyaaba wala góor mën la caa yabee góoru jàmbur jigéenu jàmbur mbokk yi séquñu ay kaf de kaf góoru jàmbur ak jigéenu jàmbur séquñu ko déedéet waxante nag mën naa nekk leeralante mën naa nekk waxante fullaak faayra tamit mën naa nekk waxante lu amul bàkkaar waaye kaf yu ëpp yi nga xam ni kenn ku ca nekk mën nga caa dépassé sa moroom islam daf koo xaraamal waaye lépp jigéen ñi la parce que comme ñoom lañ soxla islam tëj loo leen seeni bunt dama ne bu ñu tëjoon bunt yi kon kenn du fa jaar bay dugg bunt buñ tëj kenn du mën a dugg ci biir néeg borom bi subhanahu wa taala digal ku jigéen ki wala yubdiina zinatagunna seen taar yi buñ ko feeñal illa ma dahara minha lu dul la ca feeñ borom xam-xam yi ñu ne la ca feeñ mooy xar kanam ak ay tikku jara comme ni ma ko leerale woon ci jilbaabul maratil muslima li feeñ ci sa yaram bu ñu feeñal taar lu dul li feeñ wala yubdina zinatagunna bu ñu feeñal seen taar illa li buulatihinna lu dul seen jëkkër yee ko gis mbokk yi nanu ragal yàlla xeeti fuddan yii nu gis jigéen di ko jël di deseene ci loxoom waxuñu la dafa xaraam de waxuñu la loolu waaye dama ni loola taar taar la bu araam góoru jàmbur gis ko même booy sëy sax munoo fexe ba góoru jàmbur du ko gis ndax kuy sëy xam ngeen doo sëy ca kaw asamaan sa ci ay kër ngay sëy te kër ña nga sëy sa rakku jëkkër ma nga fa sa magu jëkkër nga mag bu dee këru famille da ngeen di bokk di lekk te loo def ci loxo ko bokkal di lekk mu gis ko mënoo ko di nëbb dañu ragal yàlla ñu xam ne yooyu amul benn sens amul benn sens man damay wax góor ñi ci boppam bokk na ci li ñu war a dimbalee jigéen ñoo warta fullaal loola parce que taar du loolu taaru jigéen du ay maquillage ak pastele ko nangam déedéet taaru jigéen juy sëy mooy déggal borom këram loolu mooy taar loolu mooy taar jigéen ju déggal borom këram lii moo tax li ñuy jur du barkeel léegi parce que mbir yi ay yére ay taar ay dàll yu amul benn valeur góor gu am fulla sax doo ko doo doo doo may xorom sax ku ko def parce que yooyu bu doon day yem ci biir néeg waaw kay waaye comme jigéen ñi dañ koy def ba muy génn ca biti lii dana daanu dana daanu góor ci moom moo war a am fulla ju doy ni di bañ a xoromal jigéen sax su fekkee mi ngi def yu mel noonu taar dëgg dëgg dëgg dëgg mooy jigéen di ragal yàlla mu xam ni déggal borom këram mooy déggal yàlla ak ab yonenteem buñ la waxee bul tontu parce que amoo pour tontu bu sa baatu jëkkër yëkkati ko waxal ndànk parce que loolu mooy sa wàll buñ la arsalee muñal parce que yaa sëy si ki la indi ci kër gi di la jox ngay lekk di la jox ngay naan yor la yor say mbokk di la dimbali kooku am na sañ-sañu gëdd la am na sañ-sañu arsale la am na sañ-sañu waxal la naqari nga muñ ku dul wanaasu lu lu ay baat doo jur lu baax ba di ko imbi mukk ku dul wanaasu ay baat doo mën a jur lu baax mukk oyof jigéen ju la gën a diis moo la gën a mën a jur lu ñàkk barke jigéen dañ ko daan wax ba ba wër ko mu wóor ko ni tooñul dañ koo tooñ mu sukk jéggalu yaa soxla yaay sàkk barke nit ñi dafa mel dañoo xamatul fu ñu jëm léegi comme ay xar yuñ jiital di sàmm ragal yàlla gi nag bu fekkee nit ki digganteem ak boromam ci solo geeg sàmm gi mënu koo respecté kooku du respecté borom këram déedéet in kuntum na turidna alxayata addunia wa zinataha poñete àddina mi su dee moom ngeen bëgg kaay leen ma fase leen ngeen dem seen kër bàyyi bu dee soxna yonent bi lañ ko wax fa kay fa ka jeneen jigéen wa man yaqnut minkunna ku dogu ci jigéen ñi bis ni ki tey mu ni man de lii ma dégg insha allahu danaa ko jëfee lillahi wa rasuli yàlla ak yonent bi rek a tax may def loolu wa taamal saalihan fas yéene jëf-jëf ju baax nutiha ajraha marratayn duubul fay laa koy fay wa atadna laha rizqan karima tiyaaba yu rëy jigéen ju baax ju ragal yàlla lii la ko sunu borom di fayee subhanahu wa taala maa ngi yaakaar ni ñun li nu aajowoo salafu saalih aajowuñ ko woon di wax ay aay yu dul jeex ay xadis yu dul jeex wax wax ju du bari déedéet jëru ko woon ñaari baat nga daan wax ñett rek tooyal xol yi ñu jug jëfe daal di ciy topp tey da ngay wax téeméeri baat benn njariñ du ko am lu tax parce que xol yi ci boppam moom moo faatu maa ngi fàttali sama bopp di leen fàttali waxi sunu borom ci alam yani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah sunu borom mu ne xanaa jotut nag léegi seen xol yi wàññeeku ci mbonte gi mu nekk wammatul yàlla subhanahu wa taala tiit ci saa bu dajeeg boromam ñu suur ko nag nga xam ne léegi sa borom war laa aati wa ma nazala min alxaq xanaa seen xol yi jotut mu nooy ngir ngeen jëfe li yàlla wàcc ci alquran wala yakunu kalladina utul kitab min qabl fa taala alayhim al amad fa qasat qulubukum wa kathiru minhum fasiqun bu leen mel ni ñu yàlla wàcce woon ci ñoom ci ay téere lu yàgg ñu di ko foye dem ba miin ko mbir mi nekk ay folklore ak caaxaan léegi kenn ku ci nekk def ko mode ak modèle sunu borom mu ni fa qasat qulubukum seen xol yi dafa dem ba wow wa kathirun minhum fasiquun li ëpp ci ñoom wëlbatiku nekk ay saay-saay mbokk yi ñooña yàllay wax ak ñun ñoo bokk yam képp ku def la nga la ñooña defoon sunu borom seetaan la nga am la nga amoon mooy lan wa kathiru minhum li ëpp ci ñoom faasiquuna dañoo mujj nekk ay saay-saay noo ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq te delloo si waat na suñu diineeg suñu pas-pas delloo si gu rafet yal na yàlla saxal nu ci njub te it wan nu dëgg ba ñu gis ko ñu mën koy topp wan ñu ay caaxaan ba ñu gis ko ñu moyta ndiku ko nangul nu nangul leen wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain